jadi jadi jonga daw ba tey ci seen scandale du jour de ce mercredi 3 juillet 2024 tax ñu déglu ji vidéo bi ñëwaat les sénégalais ne connaissent pas Ousmane Sonko pas su du ñëpp mm-hmm. Mm-hmm. c'est quelqu'un koo xamee ni moom lii moo ko neex ci communication day jug lii moo ko neex te ci lay sentir boppam c'est pas négatif hein parce que normalement ci mbirum déclaration politique générale président assemblée nationale moo waroon a bind lettre ci au lieu de Guy Marius Sagna ne ko monsieur le premier ministre nous vous invitons jour sangam pour nga ñëw def sa déclaration politique générale ñun waa assemblée nationale mais c'est purement politique actuellement on a fait un focal sur Ousmane Sonko loolu moo ko neex mais wax naa leen ko fii la yaa y a deux semaines Ousmane Sonko dina def déclaration politique générale mais mais laataa muy wax di def déclaration politique générale am ci système am ci euh, façon communication am day tax ba day def ba ñëpp ne li ñu naan def focus sur moom mbamb ko coow li ne yëpp tourné autour de lui mu toog nag doog a jàkkaarloo ak ñëpp gis na la déclaration de politique générale yi fi jàlloon yi fi jaaloon yëpp buy def déclaration de politique générale waxuma assemblée kenn du fa xaj waaye boo moytuwul lu wër assemblée kenn du fa xaj tout simplement parce que y des gens yoo xamee qui peuvent na pas être des pro Sonko ñoo xamee ni dañuy am benn euh, maanaam euh, sobu pas sob mais dañuy curiosité wu dem seetaan ko ci assemblée nationale ak assemblée nu muy demee jour boobu dalee leer ni toutes les télévisions seront en direct c'est sa manière lui de communiquer qui peut bon bonne ou pas hein, selon nu ko nit ñuy xalaatee mais moom moo moo bëgg di def le le le vide autour de lui mu nekk koo xamee ne moom la ñuy waxtaanee tey toutes les radios toutes les chaines de télévision tous les journaux. Ousmane Sonko Ousmane Sonko. xoolal kër ba mu toog wala bureau ba mu toog. je suis sûr il est en train de sourire. mais je veux dire que. mais ñëpp il ne parle que de moi. nga xamee léegi su. Guy Marius daa tembere rek daa kii rek daa bëgg moom daa bëgg soos bu ñëw mu bokk ci rek daa bëgg nekk ñànkataan rek lu ko binduloo moom dafa ni bu mu dem de moom sakkuwul pour mu dem daf ko tere daf ko ni bul dem waaw kay bu leen jaawale mbir yi ma ne eh, xam nga lu gën a métti nga xam sa waraf ba pare doo ko def. warul xaar ñu koy bind leetr ci mu wax nu ñu nu muy doxalee réew mi dafa ni réew mi lay rendre compte ñi nekk assemblée xale yee leen yónni mag yee leen yónni sénégalais yee leen yónni kon rendre compte fa la dàkkee kon na dem rendre compte bu mu xaar ku ko ci neexal bu mu xaar ku ko ci bind lettre li nga njëkkee nag loolu moom dëgg la lii moo ko ci neex ñëw xale yu bëri waaye nag léegi kon ku bu génnee am na ñuy saaga ak ñuy yuuxu xëy na génn bi dina géej xëy na populisme bi dina wàññeeku parce que bii yoon dégg nañ ay saaga am na ci ay yuuxu ak ay xaste xëy na wàññi xëy na populisme bi dina wàññeeku parce que am na loo xamante ne nit munu koo supporter ñu lay yuuxu di la traiter de toutes les noms en tant que PM dafa doy waar waaye nag ñu bind ko lettre woo rëkk la boo xamante dañ ko ko war a rëkk wax euh, doo sëgg ñu rëkk la ko benn yoon nga jàll mu metti mu sedd booy dee nga dee booy dund nga dund c'est une manière de parler c'est façon de parler na dem soxlawul ñu koy bind lettre soxlawul ñu ko ciy neexal c'est le PM il doit prendre ses responsabilités et puis respecter nos constitutions dem xamal ñu lii la bëgg a def ndax boobu léegi ñu ngi laam-laamee projet bi am nag amut moom nee na projet bi parewul d'accord mais lu même bu parewul am na lu mu commencé am na lu mu commencé ci projet bi na ko xamal sénégalais yi ay génn ci caaxaan yi ngeen di nekk bëgg gëmloo sénégalais yi nii yu kenn xamut génn leen ci yi ngeen nekk waaye il doit faire sa déclaration politique générale un point un trait c'est tout un devoir bu mu war a mën a remplir pour les sénégalais yi nga xamante ne lu mu ndaw ndaw am nañ ci moom yaakaar nit bu ñu la nee munoo dangay ngay won ni mën nga défi la na dem moom woo nañ ko ci mbirum Adji Sarr mun ñu ne Adji Sarr ne ko du mësa toog du mës ñëw am dëgg ci kawam mës ñëw mës ta festu ak aji maam maam mbay ñaam parey waaye nag fii nii nag amul tribunal amul teg preuve amul teg vidéo amul teg audio da ngay taxaw say nawle laaj la nga tontu tamit bëgg lu yomb lu ëpp li baaxul ci góor yàlla góor yàlla moomul yenn ñi bàyyi leen caaxaan te ngeen wax ko dëgg bañu ko ma saaga na dem defi déclaration politique générale génn ci caaxaan yi mu nekk ci layam layam yi bi mu nekk na génn ci loolu dem defi déclaration ak comme ñi ñi fi du PM biñ koy woowee barke dem moo njaay Amadou Ba lañ ko doon woowee woowee nañ ko fi Boun Abdallah Dionne woowee nañ ko fi euh, Mimi Touré woowee nañ ko fi Macky Sall moomu ci bopp ñoom ñëpp a jaar def seen déclaration pour moom mooy kan il kii ba fi indi ay réglement naan ay bind leen ko lettre normalement maam bind ko lettre xam na ni lu ko war na ko dem defi voilà kenn sonal détails yi ngeen war a bax te ngeen boo leen toogee ci plateau yi di wax lu jaar yoon wax nit ki lu muy dégg na dem défi déclaration politique générale populisme bii du ko topp assemblée assemblée ñu responsable ñu régler la fay fekk ñu koy dóor ay question mu leen koy dumawaat voilà.